kër gi nekkee ci Grand Yoff Jidda 1 ay njabootug Jean Mendy di fa yeewoo ñoom bésub samedi lañu tàmm ngir defar seen galax donte vendredi saint lañu ko tàmm woon di gis. waaw am na ñuy def euh, sambi boo amee moyen mën nga teel a defar nga dem mees du la tere dem mees mais boo amulee ku lay jàppale xam nga lii moom na coono la. motax ebe bi di wax lo galax bi nak atub prene ji bari nañu ko defarul ndax cheray kundu gi mer mendi mom boole ay pexem ngir rek matal ko. Ah, deug yalla red bi bo deug deug dafa metti mais c'est que li mënuñu mënuñu ko baye ndax xalé lii lu bon bon bon mu tuuti tuuti da ngay defar tuuti mais metti na moom dëgg dëgg. buy bi kilo ren ji am na ñuy jaay 650 am na ñuy jaay 700 kilo waaw man de 650 laa jëndee mais ñu bëri 700 lañ jëndee man. 5000 ak lu ci teg laa jënd dugg gerte bi bokku buy bi bokku si su nga doog a dem ci suukar bi suukar bi moom ren ji dafa sax parce que suukar dafa seer pare amul da ngay dem ñu ne la amul ngay dem beneen magasin mais ñu bëri dëgg-dëgg ñu bëri yi ñu doon def euh, ñaari paan ñu bëri benn la leen ñuy def me boyo re xale ñi and ak seen morom do ko bay metti na me il faut nga jëm def dama don de 50000 me ya, ren jii galax bi itam donte lek dong la bok na ci mandarga yi di fësal jamm sante bi am ci di ne julit ak kercen suñu xawma benen koñ mais suñu koñ bi mom ñun presque ñun ñëpp ben lañ ndax fess musulman day am ñun ñëpp ok boko motax ñun tamit fi amuñ catholique amul chrétien xalé yépp ben lañ tey yéen a ngi ma fekk fi ni xamoo ni musulman la ou chrétienne on sent vraiment pas la différence ñun ñëp ben lañ ci bëtu yalla tay ñun ñëp ñu ngi déggo di and ba tay ma mëna ñëw fi ni di kay jappalé si bisu nga lax bi defari nu gi nak ku ne ak na mu cey demee man sama bos mom man dama koy simple rek man damay def moustakat ak ki essence banana ak fleur d'ananas ah ma man dama gis nga bo bo bañé di def bay def jàngir jàngir yu même mun na togg fi ba suba do sundu furi eh, do sansé do def dara parce que da ngay def ki lu yam daal motax man affaire banaana yi ci dugal ndox bi rek essence bi rek laa ciy def. parce que am na ñoo xam ne dañuy def ay fruits si biir ay raisin ay banaan ay pomme. raisin dina am de mais ci cere bi nga koy boole après nga sol waaw. kon yow mën nañ ne sa ngalax koko rek lay am comme ingrédient ak euh, li nga xam ne mooy raisin. waaw ah, ak kii essence banaana yëpp da da am mais. même euh, pot euh, banaana bi bu ma ko jëndee eh, ndox bi rek laa ciy def du ma def ñam bi. mooy ananas bi. ananas bi waaw. am na ñu bëri ñuy wax ne aussi euh, soo leen di defar li nga xam ne mooy ngalax bi da ngeen siy def bière genre yooyu noonu. non. da dégg souvent ñu ko. non de ah, xam nga dañuy kii rek dañuy tooñ rek mais dara <laughs> buy rek ak ak tige rek eh. moom ngay kii ak ndox.

gannaaw ba mbir mi it sarax la ngalax bi gannaaw ba ñu ko defaree ba pare ñu daldi koy rekk séddale ci ay bool ak it ay soo daal di koy jox ñi nga xam ne ñoo dëkkee ca kër ga ak it ca koñ ba muy esprit de partage ak bokk bi nga xamante ne mu ngi koy fësal ci diggante chrétien yi ak jullit yi vou to ko ɓostaa só ɗoo soti woo só de soti ko si kiigu veer yemma wara en yeg deuxiéme gen en ka en ka ɓeyo en yeg deuxiéme en jox arrière ak mous nokkal maske tas arrière ah ah borom kay borom siyom baa ngi né? nii ah, eh. deuxiéme